yéen kaay gi ci xëlim ak Assane Samb daat nay wax ne way yi coon doon way maanaam am njàngaleem kese moo ci nekk coon sekk mooy waykat bi nga xam ne dafa yàgg way ne àdduna du dara tey jii ñëpp xam nañ ne coon sekk la mu doon way maanaam dëgg ko wër péng la yéen gi ne na Sénégal war nañoo delloo njukkal ki nga xam ne mooy coon balaago sekk yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa njiitul ma MEDES di président Mbagnick Diop nee na coon sekk maanaam xamuñu ko woon waaye nag nit la koo xam ne nit ku dëgg woon la coon du bàyyi mukk ñi nga xam ne ñooy ay xaritama dëgg nag fu mu fa la koy bàyyi yéenekaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu mi di président Macky Sall moom tim am na lu ko metti lool bi mu déggee ñu ne Thione Seck génn na àdduna Cheikh Bamba Dièye nee na nag Thione Seck mi nga xam ne lenn lu nekk defal na ko réewum Sénégal ak way yi nga xam ne doon na ko way kenn ku nekk di si jànge war nañu nag rendre hommage hommage boo xam ne ñëpp dinañu xam ne kii monument la woon Thierno Alassane Sall nee na Sénégal ñàkk na Afrique ñàkk na yéenekaay gi du l'Observateur ñu xëy fekk fa Youssou na ki nga xam ne mooy Thione Seck nit la koo xam ne nit ku baax a baax la woon Thione Seck dëgg maanaam la doon wax wax te coon man ak moom yàgg na ma wax na ma am na loo xam ne même bu ñu si dégguwul man ak yow waaye man Thione Seck ci sama xol laa la dugal yow Youssou Ndour Youssou Ndour na Thione Seck jamono ji génn na adduna Sénégal ak ñëpp ñoo xam ne ñoo doon yëngatu ci wàllum way maanaam ñàkk nañ te nag Thione Seck texte yi nga xamante ni doon na ko wax maanaam texte yu fort la Thione Seck bu wayee kenn ku nekk xam ne ndaanaan laaj Assane Ndiaye ngéwal gi daat nay wax ne Thione Seck moo leen xàllal yoon wi ba ñu mën a jàll jamono ji war nañu ko gën a delloo njukkal adduna bi ñoo ñàkk Omar Pen kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko nee na nag jamono ji musique Sénégal ñàkk na sunu génération ñun ñëpp ñàkk Thione Seck fu ko dëgg fekk fa la koy bàyyi Kumba Gawlo Seck moom tim yëkkati na ay kàddu nee na parole yi nga xamante ni Thione Ballago Seck daanaka way parole la yoo xamante ni njàngalem kese moo nekk ci biir Khalifa Sall wax ne en tout cas ab monument ñàkk nañu ko yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy na dellu si si carrière Thione Seck A ba Z ak yi nga xamante ni ma ngi ci yéenekaay gi xëy tënk kàddu yëpp ne en tout cas témoignage maanaam seede yi nga xam ne def nañ ko ci Thione Seck seede yëpp benn la nit la woon ko xam ne nit ku baax la woon nit ku yéwén la woon Baaba Maal moo ko wax ci yéenekaay gi ba tey ci Libération maître Ousmane Seye mi nga xam ne ab avocat am la woon wax na ne nag 4 mars bi nga xam ne moom la ñu génn la ko Cour suprême daal di seetal ba mu seet wecce jamono ji coon féex na yéenekaay gi di Dakar Times nee na ak guy gu mag moo daano yéenekaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Baaba Maal nee na nag Thione Seck moo nekkoon repère ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllu musique te générosité bi nga xam ne moo nekkoon ci moom fu ko waay natt daal na koy passé yéenekaay gi di Source A nee na mbooloo nga xam ne démb moo gunge woon coono fu ko waaye natt paase na ko maanaam daan nañu ko jébbal boromam ca armeelu Yoff ya yéen gi di réew mi ko di jee xëy wax ci manifestation yi amoon ci réewum Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo si jot gaañu ak ñi si jot ñàkk seen bakkan Serigne Mountakha Khalife général des Mourides génn na lu toll ci cinquante millions ngir nag jàppale leen ko daal wax ne na ko ñëpp roy yéen a kaay gi di réew mi ko di jee di ñu xibaar ne Serigne Mountakha jokkoo na ak njiitu réew mi di président Macky Sall ngir waxtaan ak la ñuy a kaay Muntaxa démb yëkkati na ay kàddu yedd na ñi nga xam ne ñoo état bi ak ñi nga xam na ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum politique yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa kenn koo xam ne bokk na ci avocat yi Ousmane Sonko yi di maître ma soxna kan nee na ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan loole nag ab enquête internationale moo koy leeral ndax ñi nga xam ne ñoo wàccoon ci mbedd mi doon dóor xale yi ñooñee du ñu ay policier waaye ay nervi lañu ba tey ci biir yéen a gi moom maître ma soxna kan nee na lii nga xamante ni moom la ñu def Ousmane Sonko lu ñaaw la ab complot la boo xam ne yàlla sunu borom moo ci àndul yàlla moo ko gànta la kaay gi di libération mu ñu xamal lan ñu jamono kuréel gi ëmb avocat yi Sénégal pëjxoo na kaka fu ni dëgg moo fa ndax maître Dior Diagne mi nga xam ne moo xëyoon génn wax ne maître Samba Sow moo bindal Adji Sarr plainte ba maître Samba Sow moomee weddi na ko ba pare daal di koy fas yéene yóbbu fa mbaxana doonee benn yéen kaay gi di laas di ñu xibaar nan ñu maître Samba Sow moom daat nay wax ne recevoir na ki nga xam ne mooy Adji Sarr quinze jours avant mbir yi di xew yéen kaay gi du l'observateur nee na jàppante yi nga xam ne moo amoon ci Ndakaaru ak ci biir réew mi ci banlieue bu Ndakaaru ak ñett ci ay manifestants yoo xam ne dañoo bëggoon a dajji gàbbu kuri banque bi nekk ci banlieue bi waaye nag ñooñee mujjee nañu leen a teg loxo yéen a gi du source ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko muy digee nee na bis bu ko yàlla defee mu nekk njiitu réewum Sénégal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ger ak wàllum gar daajjoo alalu askan wi loolu lépp dina jeex ci réew mi yéen a kaay gi di estat xëy duñu xibaar naan ñu éliminatoire ak CAN 2022 Sénégal war naa jàmmarloo ak Congo ak Eswatini waaye nag ba muy tuulee dina ci am ay jafe ndax bëri na ay joueurs sénégalais yoo xam ne ñoo ngi bitim réew seeni